السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله هؤلاء يصدق يا منك تحب يا وصغني كنا عليك أسرع عجلا من لنا سؤالنا إلا إلى الكرام جواني توا وحمني وكنا توا وتركنا السماء والأرض وهب يا مساكين المسلمين أجيب أسئلة هذا اليوم محلين أربعة سواء بيا بس سواء قال الحمد لله من عالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نيب أرحم أرحم القديمات الروحية قديمة وأكيد قديمة هنين naa xam naa ne saa ñëpp rek xam naa euh, waxtaan gàtt loo xam ne ñoom bu fay ñoo ko moom waaye ñëpp ci leen xanaa ci bëgg a euh, Samba Aminta jëlee na ci bàyyam suñ Samba Aminta jëlee ci sëñ Bamba wax ci moom mooy tafsiru آية إن, الملوك إذا دخلوا قرية جوجيه جعلوا أعزة أهلها أذلة سالك يفهم سج بفري إن الملوك ملوك يوم كيفر الكفر والفسق والنفاق دال كيفر أكو أكو شاشة أكو نافق loolu yooyee buñ buñ duggee ci xaritam ab xol danañ def aizata ahliha aizata ahliha ñun ñooy al iman wal islam wal ihsan kon adilatan daal leen di gàcceel kon dañu kon dañu di dindi ci xol ba nga xam ni kon ak kéefar ak lu ko ak fusuq akuk caay-caay akuk nafiq ma mat naa daw lool ndax saa bu duggee kat kufr moom daal di dàq imaan fisq dàq islaam nifaaq dàq ihsaan soo anko taawdu